merci merci merci kaay taxaw kaay taxaw taxawal sama nuyoo maa ngi koy yëngal ci waa kër Serigne Touba Mbacke Balla Mbacke Balla ñu ngi leen di nuyu bu baax Serigne Bara maa ngi woon Mbacke moom Serigne Fallou Serigne Koudous Mbacke taxawal taxawal concentré foofu ñu ngi leen di ziar bu baax Mbacke Balla sama xarit Serigne Fallou mu koy def lépp ci message suñu tubaab bi di nuyu gën a di nuyu nag sama bàjjen. bés bi concentré wul. et di sant trop si man. Aja Soda wuy mais Arif am nañ baara mais nuyu ko fa nee ko boo nuyu ñu waxtaan xar leen ko waral mooy Aja amul ndax sama bàjjen bi sànq rek dama leen ci sama yaay mi ngi naan du ma juddoo bokk na ci ñi nga uuf dund ma. dëgg la. ak sama bànneel keneen keneen yàlla na ko yàlla kon deret mooy wax. kon deret mooy wax. kon loolu tam du ndox. loolu du ndox du ndox du ndox du ndox. ba yàlla dogal tey ma donnu samay maam ndax li may def. jàngiwu ma ko de. dëgg way wi may def. man Pape Diouf dama ne way wi may def jàngiwu ma ko. déedéet dama ko doon ci deret. dëgg la ko ci ay maam. dëgg la di ci way di ci dëgg. Mhm. di ci dëgg. kër gi yooyu yaa yoroo de kon. su ma woyee rek defe naa ne war waaye nag man bi may ñëw di woy fekk naa yoon wi leer ku ne ajaratu solo naa ma faa wala nga ne Aliou Sow yàlla na ko yàlla yërëm wala nga ne Assane Diabaye wala nga ne Boy wala nga ne sama maam góor a jabare wala nga ne sama nijaay borom tabalay yaakaar naa ne war naa mën a woy ndaa naan nga te nga juddoo wala nga ne as liggéey sama maam bu lool nag di dox di dox di dox dana di dox ba kari merci da ngay dem demal loolu bëgg ma ci li may def mu sopp ma yàgg ànd ak man bëgg man ba bëgg suma jabar loolu ba doon bëggeel ma tey waaye yamu ci merci dama ko jaral lu ne ma ko jaral xuloo dama ko jaral xeex dama ko jaral ne kon bu yàlla di dox yàlla di dogal àdduna di dox ba mu def ba am soxla jël bi dox ko sama soxla ñu jógee ci noonu soxnaam am doom ñu jël tontu bi di béy ko sama soxna kon kay wàccoon na ak ñun kon Mbacke béy na ak rek ndax nag teraanga teraanga rek la maa ngi biral waa Sénégal que ni Karim Meïssa amuñu ñàkk fere mënuñu ko fay yàlla lañ koy bàyyee ndax toppee alal toppee wuñu waaye teraanga lañu toppee ak bëggee ak cofeel kon Mbadiane kontaan nañu. Papa Diouf ñi nga doon feggoole sama Alaaji Seydou Faye sa baay yaay jàlle ñi ngay seexaay bay gërëmal sa maam yii dabaas kon kondoo ñi nga danu sa golem bi maam yi nga gërëm sa bay du fi sa maam leen jooy alaaji ñanga du fay sa maam si bagadaas bu jàll maa ngi sey maa ngi sey samba dembal muxtaar sa ngi yenoon yaa be

léegi dafa kan téye micro yi téye micro yëpp yëpp. booleel ma lépp. maa ko booleel ko waaye dafa. naka bëgguma ñu koy woo ci lépp moom la fii moom waaw asalaamaaleykum mbooloo mi ñaari baat laay wax rek ba ñu tegu wàcc. na nga def. damay sant yàlla. julli ci yonent bi ginnaaw ba ma musoo ci seytaane ba noppi tabarkàlla macha allah Karim Messi nii tudd doomam ji man nii maa jur yaay demee ba sama sët di tudd sëtam di tudd doomam man sama ñaareelu sët laa tudd loolu nag doon waaye kii nga tudd di tudd sëriñ Mbàkke di denc doomi sëriñ Mbàkke suñu ñu sonn ko loolu def na ma mbégte xoolal sama kanam gi damaa jooy man su ma bëggee damay jooy waaye tabarkalla macha allah Papa Diouf nii soxna Mbour ma ko jur ak Fatou Mbour ma jur ma jur. kon jàll mi si na leen. jur Fatou mu sama jur ma. maam yow sa ndey nga aaw li sa ndey muy jëkk a seet du ma la fay maa fekk mboj ju maa xam ni dugub ci tool ba ma sa ndey di fekk ca kër ga booba kii ma doon ko am na ñeent fukki at maa ngi nekk moom ca kër ga nekk moom ca kër yàlla yàlla dogal ci man ñaari góor sama seet sama ceeb bi sa yaay ko moom amu fenn yow yaa baax yaay waaye nag moom la la yàlla fayee kii taxaw kon ñuy bàyyi leen jimaamam ñu ñu bàyyi leen sakki jëf pour jimaam ñu defal la lu baax sakki jëf mooy ñu defal la lu baax dama ko wax mooy soo ko wax li nga def alkaati nag ba mu dafa dugg ci defar na kër gi te moom moom tur bi may leen moom moom lu ko war a naw ci yàlla na dugg war nga nuur bi si dëgg la dina am yaram mu may ko góor mu ruus mu may ko mu doon ngir ñu ko war a nga wéet ak daal waaye loolu moo ci loolu la ñu ko ci lépp lu doon ci asalaamaaleykum

Bajal waxal bajal waxal bajal waxal bajal waxal

lañ koy doyee kon ñu ngi liggéey Assane wax leen ne fu waay toll ne amul ndax ñu ngi tudd xaaral ma gérer loolu. waaw Samy na ngeen Aliou Bale de. Samy. ñu ne ci xaar yi ndax pare nañ. ñu ubbi tuuti pour ñu ci ginnaaw gis. ñu ubbi ñu ubbi tuuti rek dimbalante ba ñu ci ñuy a tam. waaw yéen a xam ne déglu ndigal rek. man <coughs> de samay tànk day métti mënuma toog waaw loolu boo gis. nee na bisimilah sëñ bi nee na bisimilah. ki gàtt bisimilah. bay jumel programme. dafa war a leer nañ asxaabaan ndeke élément donc ñu tuddee nañ ko soxna Xadijatu Baas bébé Baas ñu gën koo xam ci bébé Baas bu Papa Diouf ah yàlla na ko jiital yaa ko moom yàlla na ko muur ba muy sëyi barke muur indi yoon léwén ko ma boo ma ne ko maram kokkee ndaam ma ne

Yàlla may la waaye bu yàq miliyaar bu la ah miliyaar bu la miliyaar bu la jox ko sëriñ bi. tey baas mu ndaw mu ne ko bébé baas mu ndaw. xam naa ne nekk ci kanam rek. fii am espace événement yi nga jël nga bëgg a jël def di sport asan sëriñ Bara Mbacké moom sëriñ bi am na këriñ la si nekk nag ñu ngi am waaye war naa ñëw aussi si yàpp këriñ kese yow mooy sa soo dama ko fa ko ko am lii yow mooy dama yu ma maay ko ko mais Amir Yar Amir. sëriñ Ba la sëriñ Ba la ko wër ci barke sëriñ Touba. ñëwal ñëwal moom la jëloon première fois. parce que bi nga dugg na sa kër. dugg na kër jàmbur bi def nga lépp. Fatick. Fatick. binet binet binet eh. eh. moom ak Abdou Karim la ñu bokkul dëkk Grand Dakar dundoo fa yaroo fa cër bii du chance mérite la ndax ñoom Samba leen boole ak Biram Soda bokk ak Pape benn maam bokk ak Abdou Karim Pape mi bokk ak Abdou Karim benn maam Soda wax na ko léegi waaye bébé ba mu tàmbee seen biir dafa dëgëral loolu ñu bokk benn deret bébé nekk ni koo xam ne nii dana wax ni bébé bés bii ñu chance yow mérite la bébé ci taar bi bébé ci sañsa bi demee ci mbaax gi dama wax ni tubaab nee na bien am na très bien am na waaye meilleur mooy waajo te c'est toi ba nga ñu bokk ba nga ñu ànd ak ñun ba léegi bàyyi woo waaye nag li Pape bokk ak Abdou moom la bokk ak dëgg nii lu bokk sama maam soo la Fall expliqué ko Abdou Karim ku baax ku ci ku baax ku ne ci yow ñu bokk naa moom buur ñu bokk ak ñëpp dem ma ci seen wàll ma càmbaale ko ni ñu ma réeru doon ndoxam sàmba nga réer mbay ak beneen papa nga mu dee xanaa la mbay mu yaay cale ñu bokk ak sooda jël bébé nii bokk ak moom kon fa tubaarkàlla macha allah lu jot a béykat ak buur dañuy ci dugal loolu. jërëjëf li ma ciy dolli mooy li mu jox cër bi laa ciy dolli. waaw kii mu jox cër bi waaw. laa ciy dolli. waaw li mu jox cër bi. waaw mooy soxna Pape Diouf. waaw mais mooy suñu soxna ñun ñëpp. parce que xam nga lu tax ma wax loolu. waaw gis nga artiste booy sëy ak moom. waaw dafa métti. dëgg la dëgg la dëgg la di gis am di jàmm di gis dëgg la. du nelaw guddi du nelaw bëccëg bébé balaa sonn sax Pape du nekk Pape du nekk Pape yow nee naa di nga am téeméeri turam la ndax kenn nekk rek am na yéen ci sa passe ba laa bëgg baax di nit koo xamante nit ku gore la nit ku neex a àndal sa papa da laa bëgg ah ak sama papa waaw bàyyi lay nga bàyyi moom la ñuy bëgg a déglu kii Pape Diouf moo ko may jabar muy Adja Khady mu sëy ci biir kër gi Pape Maguette nee na ñëpp ñu wuyu si ko yëngu Karim Karim Abdou Karim nee na Abdou Karim ndey ma liggéey nee na ndey ma liggéey nii man moom ba ñu doonee xale. nee na moom Ayouba Mbaye ba ñu doonee xale. muy ku nangu. muy ku nangu. te lu mu am jox ma. te lu mu am jox na ko ko. Abdou Karim. Abdou Karim. ni ñu koy xoolee nii. lii ñu koy xoolee nii. mooy asakay li muy am. mooy asakay li muy am. ndax ndey ma ko liggéey ndax ndey ma ko liggéey ci kër baayam. te moom am na lu ëpp juróom-benn fukki dootul wax lu ko wóorul. moom. nee moom Abdou Karim. ci boppam ci boppam Abdou Karim. bu ma ne. fop fu mu nekk moom may sentir. dana ko sentir. su ma toogee rek. su toogee. damay jékki-jékki rek téléphone bi sonné. day jékki téléphone bi sonné. mu yónnee ma xaalis mu yónnee ko xaalis bu bari. mu yónnee lu tuuti. te nee na it du ko yónnee lu tuuti. xale bi juddoo. bi xale bi juddoo. dafa ne ma papa. daf ko ne ma papa. dinaa la yónnee. danaa la yónnee. loo sol. ma xoolee wér bi. bi. yére rek. nee na rek. dàll. dàll. marakis. marakis. mbaxane. mbaxane. ak argent ak argent de yàlla ko yàlla nee na Abdou Karim sa baay nee na moom ñi mu bokkal ndey ak baay moom ñi nga bokkal ndey ak baay yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla sàmm te it billaahi nee na billaahi ku ko nee na ku ko ku ko ku ko ñëwee am nga problème am nga problème ndax kii ndax nee kii daanu nee na Abdou Karim du laal suuf wér laa wax nee na moom bàyyi lu wér lay wax wér laa wax nee na papaam nee na lu wér lay wax taalibe murid saadix laa taalibe Serigne la am sama ngërëmal Serigne am ngërëmam am ngërëmal Serigne ko koy ñaanal nee na moo ko koy ñaanal ndax sama bàyyi moo ma ñaanaloon ndax nee na moom ko ñaanaloon nee na ñaan boo ko bàyyi ñaanaloon ñaan ko